alhamdulilah ñu seetlu ni mbër yi tëgg nañ leen ñu nekk ay mbër yu mag laa mën a wax ah mais stade bi fi nii est-ce que euh, am nañoo xam ne seen wax jarul nga ci dépendre dañ lay sóobal wax la loo xam ne duñ ko def comprendre nga lu mat quatre grands combats normalement stade bi war na mën a ëpp ni war na mën a fees stade bi. boo gisee mbër yu bëri di année balance duñ bëre lu mel ni moo tax da ngay fay benn mbër 500000 mu mu andil la public nga fay benn mbër 3 millions ay 2 millions du la andil dara. te man nag am na yoo xam ne nag waxtaan la am na yoo xamante ne bi technique la et am na yoo xam ne man kenn du ma ko def tey jii nii ni euh, mbër yi am na ñoo xam ne li ñu waxoon teewoon ak Fallou defuñu ko. que Fallou dëgg na fi ay lamb yoo xamante ne ay boy yoo xamante ne Ibamar fees na dell. day fees dell day fees dell et puis euh, même tëgg na fii ay boy yoo xam ne ay mbay guy gi Alioune Seye Signor la ko tëgg dafa fees dell mais li mbër yi def tey jii nii man wax dëgg yàlla ànduma ci. alors nan nga gisee stade bi promoteur bi génnee xaalis fay mbër yi gars yi euh, combat yu mag gars yi waroon a feesal stade bi feesaluñ ko noo ko gisee. waaw loolu moom kenn rafetlu ko ndax li ñuy wax rek li ngay jaay moo lay jaay comprendre nga dafa am ñoo xam ni làmb da nga koy dundal bu ko dundee tey gëm naa ne mbër yi nekk fii nii yëpp si nekk bu promoteur yëkkatee xaalisam fay la nga mën a jël sa kase jënd ci billet wala say partenaire li lay jàppalee nga jënd si billet waaye boo xoolee daanaka mbëri li ñu fayee ko yëpp 95 pour cent gën a farataal yaa ngi dem si ni mu jox la lu mu lay jàppalee nga jël lu mel nii moom bu fekkee lii la lamb du ko avancé mbëri nañuy dundal lamb waaw gis nga lamb dafa métti lamb ji amul sponsor tey gis nga tey stade bi séntoon nañ fi leneen lu raw lii waaye xañ na nag lii la ko yàlla euh, doxalee li ñuy ñaan daal mooy promoteur bi bi jël xaalisam investir ci journée yi mel nii pour bégal amateur yi amateur yi waroon nañ ko mën a gën wuyu si waaye di ko ñaanal yàlla na ci yàlla yàlla na ko yàlla defal mu am ci lu kawe njortam si barke Seydina Mohamed yéen tamit yéen ñaanal baax a baax ndax yéen si def bu am solo bu ñëpp jàppee comme ni ngeen jàppee rek lamb coono yi ngay daj ci lamb voilà moo jiite euh, jeune amateur association des jeunes amateurs Gora maa ngi siyaar waaw maa ngi grand ñu dippee lamb ji alors loolu di wax Fallou waaw lamb ji vraiment kontaan ci Fallou rek di ko wax ni ko ñu ngi koy remercier vraiment di ko delloo njukkal aussi mais ñu seetlu stade bi feesul euh, ni ñu yaakaare woon stade bi dana ko bëree nit bëreewu ko noonu nit lan moo tax waaw loolu moom man du ma ci mere Fallou loolu man mbëri laa ci mere parce que mbëri ñoo euh, gën a mobiliser aussi gën a sensibiliser seen i ay supporters xamal leen ni bés yombul le fait que tey ji mu xool journée bu toll nii def ko gala def ko dernière journée presque mën naa ci saison bi di ko tëjee saison bi stade dafa waroon fees dell mais di loolu moom mbëri laa ciy mere di leen wax vraiment. est-ce que mbëri yi ñu tëgg aussi am nañu tour est-ce du euh, euh, dañoo virtuel rek taxuñu ko am tour waaw mbëri am nañ tour parce que tey boo xool mbëri mu tëgg yëpp xam nañ leen ci làmb ay mbëru amateur lañu mais dama gis ñuy def benn affaire ko jox mbër ba pare di ko mbëri di ko joxe seen koñ yi mais pourquoi pas léegi ñuy téye billet yi ba ci buntu stade bi képp koo xamante ne oto indina la ñu jox la billet nga dugg parce que lii aussi vraiment dafa nekk loo xamante ni doxalu làmb promoteur bi jël xaalisam financé ko ci ay mbër mbëri aussi war nañ di delloo promoteur yi njukkal waaw loolu moom vraiment ñun amateurs yi rafetlu wuñ ko. saa yi ma ñëwee dama dama koy buruxlu. non maa ngi nuyu waa Sénégal ak lay nuyu. non boo ma fay. mais laaj ma lu ma xam. <laughs> sama nijaay la alors euh, nijaay ñu gis ni stade bi aussi. Euh, ni ko mbër yi waroon a feesale feesale ñu ko combat yu ni toll aussi. mbër yi war a seetaat seen bopp rek. kuy laaj yenn cachet yi bu buñ la ko fayee. en retour. war nga am noo mën a taxawee. Mm. mais lii lépp dafay baax. bu promoteur bi paree mu def jàngat jàngat boobu muy def ñun ñu ci la ñu bokk ñun itam ci association bi lañ bokk ñun ñëpp ñu tiré ci ay enseignement boo lëgee ñu xool nan la ñuy taxawee par rapport ak ñoom cachet yi ñuy laaj ak ñun nan la ñu war a def ak ñoom. li ñu waroon a def. comme du stade bi defuñu ko yow en tant que promoteur nan nga ko gisee. waaw foofu moom tey comme ni ko waxe rek ñun li ñu war a def nañ ko yaakaar naa li ñu war mooy jël cinq grands combats andi ko ay ténor yoo xam ne nii làmb xam na leen te làmb yaakaar na leen tey yaakaar naa loolu mooy suñu rôle tey mooy suñu pas-pas ak suñu def-def li ci des nag dañ koy bàyyi ak mbër yi peut ñoom seen capacité moo toll fii seen bopp lañ wone rek wone ne ñoom waaye loolu laa doon laajte léegi maam les mu ne effectivement seen bopp la ñu wane tey waaw seen bopp la ñu wane wane ne fii la man seen capacité fii la yem alors dinañu permettre nag boo liggéey nañ xam ci li ñuy def bu baax a allah en courage merci beaucoup waaw kontaan nañ ci ñëpp nag vraiment bég nañ am nañ bu baax merci